première image Sadio Mané ci tàggatu boo xam ne mi ngi ko def euh, ca euh, ñax ma nga xam ne day yoo xam ne bu leen ko tardé ngeen bàyyi xel bu baax a baax ndax nekk ci ne topp leen ñu ci abonnement yi nga xam xam ni moom ngeen mooy tax ah, bërxal yi ñuy bërxal ci youtube bi ngeen koy mën am parce que am na image bari yoo xam ne ay youtube bi ndax ah, loolee daanaka mooy mébét mi ah, tiktok boobee tamit ñu ngi leen di ci topp ngeen xam ne yéen ni koy topp jàmbaar waniwul xadar waniwul alxaaji boo xam ne am solo lool loolee kontaan kontaan nañ ci léegi kon mu ngi noonu ak i gaayam ñu ni nañu bi tey ji euh, entraînement boobee nag ci côté ndijoor euh, bi da ko gis ci kanam bari na mbooloo mooy entraînement boobee nga xam ni mooy ñaan bi seen xel yaa ngoo euh, gaa yi nga daw ñaani moo la cinquième position ci lii di entraînement bi ngeen gis ko El Hadj Malick ngeen bu baax xammee ngeen seen waaye seen ko position la taxaw wala ah, moo nekk ci ginnaaw ngeen gis ko noonu muy doxal ah, lu am solo te ñu koy ñaanal nag tawfeex di ñaanal jàmm ak salaam euh, mu nga noonee di nuyu ah, ki nga xam ne mooy Thomas Tuchel moom mooy ki nga xam ne moo koy mujj nuyu ñancoo national image yooyu nekk image yoo xam ne yu am solo la ci euh, bile Euh, match euh, nga xam ne peñancoo nga nële ca kanam gaa yi ñi ko xam ni yéen a koy bàyyi xel te naan ana seen waaji ma nga nële di dox ca côté càmmoñ ba bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci euh, kon cant ak ngërëm na leen loolu moo nekkoon imbalance yi nga xam ne andi leen nañ leen ko danañ ñëw nag ay photo yoo xam ne yu leer naññi la bu ko defee ñu gën koo dabar ñi ba ngeen gën a gis seen champion bi jàmbaari fàkkate di ci fële nga xam ni moo nekk Bayern Munich kon du yomb ci match bi nga xam ne moom la war a dox ak kii di